ki nga xam ni mooy Walid ak ki nga xam ne mooy Adamo. mais du la yóbbaale da lay bàyyi ci biir nga ànd ak ñoom ñu lay jaay prek xama kii mais man xam naa ne yàlla moo ma boole ñoom ñuy ànd quoi mais nag naa ànd ak ñoom rek mais bu ma leen soxlaal dara bu ma dara ma dund lu métti nag Adamo ma dund lu métti ak mm. nekk bi nga xam ne maa ngi ko doon bokk suma yaay te nekk magum jëm war a am sa néegu bopp ngay tëdd ak sa yaay sa moroom yëpp boo xëyee ñu boo leen demee seet si leen seen néeg nga leen di fekk mu tëdd yow nga tëdd ak sa kon daal mën nañoo jàpp say say waajur daal ay ay ay maanaam ay ay pauvre la nunu la ko maanaam amuñu woon daal waaw amuñu woon waaw lan nga dund nag ci loo xam ne moom neex na la bu weesoo lu metti li mooy démb mm-hmm. démb foog bi ma demee waa gis waali mu ne ma waali baal ba mu neex bi muy génn man la tëjee ci son bi loolu ma gën a neex moo la gën a neex ko mooy bi mu la doon way noonu di dem. waaw mais boo toogee moom dina la gën a neex waaw léegi nag Wally 2 Sénégal gi yëpp fi mu toll nii danoo bëgg te danoo am contentement ci yow ñëpp la bëgg ñëpp lay seetaan ñëpp lay soutenir gaa yëpp yaa ngi tax ñuy reetaan ñi ñëpp yaa ngi di bégal yow defoo lu bon da ngay ay nit nit ñi di kontaan. da gis nit ñoo xamante ni dañuy am stress bu na seetaanee dañuy kontaan da ngay gis ñoo xam ne dañuy feebar tëdd hôpital yow yaa leen di reetaanloo am na ñoo xam ne nii du du du du du maanaam bu nu nekkee dañuy stressé wu chaque jour mais bu na seetaanee dañuy bëgg loolu yàlla moo ko def parce que yow yaa noonu moo tax tamit ñun dañ lay ñaanal tamit gudd fan ñaanal la wér tànk yi nga jël nii noonu la waaw léegi nag bëggoon naa tamit nag balaa live bëgg naa nga may ñu boo juddoo. <laughs> waaw waaw. may ñu boo juddoo. boo juddoo fekk baay mu jël yoonu maam booy jëmale xool na ca toppee waay baay booy ngewelen yaay booy ngewelen mam booy ngewele sax daane. ndeysa <laughs> alors Ousse léegi yow pour wan ne moo dàq woy yow boo juddoo yow. man nuñ ko wéyee. boo juddoo fekk bàyyi waaw. nga jël yoon maa ba jéem la ko. loolu sa nekkee waaw. yaay booy ngewel baay booy ngewel. fooy géwél la saf daane géwél loolu la euh, mun naa ëpp ne ko naa mun baal mën a neex waaye yow sa daane mais ak lu mu doon yaa yaa yaa ma tere waaye de alors ëpp ko harmonie <laughs> alors di ngeen waaye de te waaye de dëgg na fit doo <laughs> bàyyi nga yaa <laughs> du ma wax du ma ko wax ay <laughs> alors waaye de mu nekk ki nga xam ni nii day bégloo comme ni ko Adama mooy wax day bégloo bu baax a baax Sénégalais yi gannaaw euh, bu mu nekkee Diourbel ba léegi à chaque fois bi vidéo boo ko déggee dangay ngay ree ba sonn donc ñu koy jaajëf bu baax a baax fu mu toll nii moo ngi dakaar euh, di bégg yéen Sénégal yu bëri bëri alors mu nekkoon ay révélation yu doy waa dem maanaam ba sax buy dem si xaytam yi day nekk seen néeg mais pourtant bu xaytam bu ñu ko seetee duñ ko sax mën a seet si parce que si néeg yaayam la nekkoon donc mu ne li xam ne lu triste la donc yaa na la yàlla jàppale dem sax ba nga tabaxal sa kër yaay jooy nga nekk nga dem ba tabaxal kër ak mboolem jullit acca waaw moom man de lenn laay wax am na ñum tànne na sant yàlla waaw waaw fu ne nii moomu ñun ñëpp ku ci nekk bokk nga ak sa waajuru jigéen nekk mm-hmm. waaw boo ko bokkulit euh, ca ba nga màggee ba ngay ndaw ba mu lay tette ci biir su nga doon tëdd wala tëdd ci wetam. kon bokk nga ak sa waajuru jigéen nekk maanaam jom nag nit da koy am ci bépp anam moomoo man dafa am yu ma gëm am yu ma gëmut man la nag la concerné mm-hmm. ay fanaan ak diw fanaan ak yooyu góoma ko xam nga lu ma gëm. fexeel ba li nga nekk nga nekk ci ci fulla ak fayda ak jom. yow yaa ngi fanaan ak sa waajuru jigéen am nga koo ndax am na koo xamante ni gisul waajuru mu jigéen bay fanaanoo moom. mais tamit neexul. déggoo leen am na koo xam ne gisul waajuru bu jigéen bay fanaan ak gisul tamit maanaam te waajuru mu ngi gis wu jigéenam te waajuru jigéenam sax amul fu mu tëdd ba moom muy fanaan ak moom. maanaam yow boo ko amee rek santal yàlla. ba pare nga fierté doylu ci li nga am loolu nga am. suñu borom mooy séddale te loolu la la sédd. bis day ñëw ñu ngi koy ñaan mu sédd la lu ko ëpp. waaye man duma jàpp ni loolu mooy raison ba tax ku neex war a def lu la neex déedéet man damay jàpp ni leen rek. dafa nekk ci benn carrière carrière boo xam ni benn mbir la dafa am ku muy toppandoo ci comédie. toppandoowu ko ci toppandoo lu leer naññ gis nga wër sa gim ci war a am da ko ci am par force benn bastion mu ngi nii par premier partie yi muy def ñaari ñaari samedi yi yëpp moom moo koy def mhm. moom mooy taxaw def premier partie yi wërsëgam la dégg nga ko keroog bi mu wax mu ne la ñëw naa fi waaye kër subéyru laa nekk ci subéyru fey ci ñoom bastion lépp lu may lekk suba ngoon guddeeg bëccëg ñoo ma koy jox ak i kon wërsëgam fa la nekkoon parce que fu mu nekkoon Bambey. toog suñu borom moo doxalee ay mbiram fii. waaye na góor góorlu ba bu ko kenn ñàkkal fayda. bu ko kenn ñàkkal fulla bu ko kenn ñàkkal personnalité fi mu nekk na fa nekk à cent pour cent téye boppam à cent pour cent xam boppam à cent pour cent nekk ci li mu war a nekk te bu ko kenn fat sénégalais ñoo bëgg maanaam nit di dof dof lu ñu ràngati la dañ lay doon def dof. ngeen <laughs> lay yokk. duñ dimbali mukk ki war a dimbali. c'est loolu ah, dal dof doflu man ngay ngay def ay bêtises naan di def yi yii lañ bëgg dañ lay woo taf la ci seen bopp di la jox lépp dina am ñoo xamante ni yaaram ñu ngi yeyoon ndimbal nga war mille francs buñ jëndee sa cinq mille amuñ ko te ñu ngi tawat yeneen ak yeneen duñ ko def ci yow parce que ñoru leen ñoom kuy kaf fo ree def yëfi dof kulun comme sama xeet yi moo leen di teel ñoom la ñuy jàppale mm-hmm. ñoom la ñuy invité mm-hmm. ñoom la ñuy waxal parce que démb naa ko naa la ko waxaat dama ne la bëri na ñu fi nekk ay boy jeune talent yoo xamante ni mën nañ wooy bëri ñu fi génn ay seede ñu war leen ko teg mm-hmm. ci télé yi feneen mais duñ leen faale duñ leen lijjanti ku ñuy woo ñii la ñuy woo parce que ñoo leen ñor kon nag nañ xam suñu bopp xam fi ñuy teg suñu tànk moo fan te bàyyi victimiser wu ëpp bi. Hmm. Sénégal looloo ñu tardé. en tout cas mu doon lu am solo en tout cas fu mu toll nii daal euh, comme ni ko Ousse waxee rek buy jàppale dañ jàppale ñu ko ñu ko jàppale moom tamit wane ko jàppale donc di ma euh, gis na jomaay xar mu jënd. gisuma ko. Hmm. nee jomaay waru waxaale jomaay waru waxaale yow. Hmm. bu xar di jar deux cent cinquante mille nag tam yor deux cent dix mille nag. du waxaale ba am loolu. xaaru 150 000 la jënd. xaaru. 150 wax la rek. xaaru 150 000 la rek leel ñu duñu ay dof bu ñu présenté yenn yi duñu ko politiquer. nañ ko ñaanal politique ma. moom moo dama la ko ñaan nañ ko ñaanal mu am ndam ci senegal neen bàyyi yu saw yi ah nañu wax yu am solo da ngaa compliqué nag uno da ngaa compliqué nag jomaay jënd xaram ah, ngay loolu affaire politique la déggoo li ma la wax gars yi ñoo koy jël bu ko politique yi kon déggoo de weddiwuma mais loolu du politique. alors ah du politique kon buñ ñu ko politiquee xam naa li ma lay wax. non non expliquer dama jënd na ko yaa daf ko war a jënd waxaale dafa war a wax jënd na xaram jeex na bu ñu fi indi. yokk niveau bi mu grand juus nangam sangam ah. mais loolu grand juus. taw féex daal <laughs> dañoo baax rek. Fama Kassé ñu ngi lay nuyu bu baax a baax alors euh, ñoo ngi bu baax a baax voilà image yaa ngi noonu. image baa ngi noonu ngay gis fii la demoon je crois que kii nu sa tuddee sax fu demoon nii sax voilà Abou Kane moo yore entreprise boobu nga xam ne nii moo nekkoon uh, kii yéen. Galoya tourné naa fa moom laa la. voilà tourné nañ fa joxoon fa grand théâtre. man tourné naa fa organisé sama sama.